asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabil aalamiina wasalaatu wasalaamu alal mabawsi rahmatan lil aalamiina sayyidina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki M-Media Group Nourou Darayni ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallama di jël nuyoo boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa gi suñu sang bi a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaan mu jotlil ñu ko waa groupe bi yëpp rek xam ne képp ku nekk ci biir groupe bi rek góor ak jigéen boroom xam-xam yeeg ñiy laaj ak ñiy taata nag ñëpp daal ñoo ngi leen di jot lu nuyoo boobu di leen ziyaare bu baax a baax a baax di leen ndokkeel itam di ñaan yàlla mu dolli ñoo dimbali dom dolli ñoo defal tawféex nangu ñu suñu jaam yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te di ndokkeel Modou Ngom ñi ngi ci taxawaay bu am solo bi mu taxaw ak mbokk yi koy jàppale ci wàllu liggéey bi yépp rek ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di fas yéene yéen rek àndaat ak yéen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii moom la ñuy fas yéene liggéeyal Serigne Touba mu doon lu am solo ñu ci sant ñëpp daal góor ñi jigéen ñi taxawaay bu am solo bi nga xam ne bi am nañ ko ci te di ci soññ suñu bopp itam di ci soññ ñëpp rek ñu gën ci jàpp gën cee jublu gën ko taxaw jox ko taxawaay bi nga xam ne bi rek moom la yelloo lépp loo xam ne lii moom la yelloo ci ay jëf ak ay wax ñu jéem di ko ci jool di ko ci jëmale te lépp loo xam ne lii lu koy nar a yàq la wala lu koy war a gàllankoor loola bu dee wax la bu dee jëf la lépp rek ñu jéem ko moytu bu baax a baax ndax jéem dañ cee nekk ak suñuy kilifa ñu yërëf ñu bokk ñu liggéey bi te mu yittee leen ñu di ci tàbbi saa su ne di ko déglu saa su ne dinu topp saa su ne kon loolu rek war naa tax sax ñu jox leen cër bu toll ni ki lépp loo xam ne li rek dañ koy moytu lu ci biir groupe bi moo xam ay wax la moo xam ay jëf la daal ñu góorgóorlu di ko ci moytu bu baax a baax ndax mooy doon li nga xam ne mooy sellal liggéey bi te it mooy tax ni ñu ko tuddee mooy liggéeyu Xaadimu Rasuul daal ñu mën koo am bu ko defee loolu ñu bàyyi ko xel ñun ñun ñëpp te di sàmmante ak moom bu baax a baax a baax yal nañu ci Yàlla defal tawfeex bu baax a baax bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon suñu tàmbalee dugg ci liggéey bi tey te mooy laaj yi ñu fi rotal bi ci jëkk rek xam na ñuy ziare mbokk mi Serigne Alioune Badara Ndiaye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax a baax xam na sunu fatwa bee jàllan doon wax ci wàllu lu jëm ci jullit ajjuma ci sunu mag jooju Serigne Diir tàbbalan ci laaj yu am solo yooyu sëriñ Bada Njaay doon sàkku daal xam naa ñu gën caa def ak leeral ci wàllu sëriñ def ci ak leeral te yaakaar naa sëriñ ni mu laajee laaj bi laaj bu tënku la bu leer la boo xam ne bi yaakaar naa defe naa lu tënku la loo xam ne lii mënees na caa wax dara ci fiq kon yaakaar naa loolu moom leer na ci geneen fànn gi itam muy wax ci waajo yi nga xam ne gi maanaam xam naa foo muy gën a jooyal ay waxam ca jëmb ja nga xam ne ji day julli julli ajuma gi noonu yi maanaam léeg-léeg mu julli ji ajuma léeg-léeg mu du ko julli ji ngir ab liggéeyam a tax loolu itam am na luñ ci leral loo xam ne lii dafa yaatu lool ba xam naa la cay xaw a des rek ci luñ ci war a leeral mooy liggéey boobu rek dañ koy xamal ne moom bu demee ba nga xam ne bii liggéey boobu dong dong moom la mën a liggéey te it ca la mën a amee li nga xam ne moom lay saytoo wàllu boppam ay soxlaay boppam ak yittey boppam ak ak njabootam te xool na xool sàkku na sàkku benn liggéey boo xam ne bii maanaam mënu ko remplacer lu dut moom la aman loolu dañ ko naan bokk na ca lañ ko may maanaam mu bu ko bu ko jullik ajjuma ga naree gàllankoor mu bàyyi jullik ajjuma ga tey dem di nekk ca liggéeyam boobee ngir loraa nga joo xam ne ji mën na ko caa fekk su bàyyee liggéey ba waaye tamit du daal di bàyyi la ko rek waaye dafa war di góorgóorlu di jéem a sàkku beneen liggéey ba feeg mu koy maanaam wala mu ñàkk ko am ndaxte lislaam moom dañ naan fa daruraatu tubixu almaxzuraat lépp loo xam ne lii lislaam dala ko tere rek am na loo xam ne lii boo demee ba ak loraange na la caa am rek maanaam loola lislaam dalay may maanaam lam la doon tere nga mën koo def bu ko defee ci geneen fànn gi itam day wax maanaam musaafir maanaam safar muy tukki te dafay mel ni tukki gi nga xam ne kii moom la lislaam di wax ngir di may kiy tukki mu mën a wàññi ay jullim may kiy tukki bu dee woor bu dee ci weeru koor la mu bàyyi koor ga ba ñibbi dafay mel ni tukki googu maanaam des naa leer ci boppam kon foofu itam dañ koy xamal ne ko tukki gi nga xam ne gii moom la nit kiy tukki ci lislaam ñu koy wax ne la ca gën mooy sunna mooy muy wàññi ay julleem bu nekkee ca tukki ba wala bu dee weeru koor la ñu may ko mu mën a bañ a woor ba ñu bisi dañ ko naan tukki googu dafa am ay charte yoo xam ne yii moom lañ ko bëgg a wax nii muy tukki gi dafay am ci fuqaha yi ñoo xam ne dañ ne fi muy jóge di tukki ak fa muy dem na mat juróom-ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñaar ñi ne na mat juróom-ñetti fukki kilomètre ak ñaar muy benn ñaare ba bokk na ca tukki googu waa ji tukki na doon tukki goo xam ne gi lam ci jublu maanaam lam ci yéene mooy tukki goo xam ne gi dafay dem di defe lu baax di defe lu neex yàlla maanaam bañ a nekk tukki goo xam ne gi gu araam la goo xam ne gi day dem di ca bëgg mooy yàlla bu boobaa dootul doon musaafir waaye bokk na ca tukki ga itam fa mu jëm maanaam du fa yéene am lu mat ñeenti fan kon suñ jàppee ne fa mu jëm de moom dina fa am ñeenti fan wala lu ko ëpp boobaa dootul nekk am musaafir ci lislaam ni ñu koy waxee bokk na ci tamit fa muy tukki soxnaam du fa nekk bu fa soxnaam nekk itam dootuñu ko jàppee musaafir ci tukki googu kon booy xool muudu muudu yi bu dee ci wàll googu la lislaam moom du jàpp ne ñoom ay musaafir lañu ndax kon ñoom muudu muudu yooyu yëpp dañu daal doon ay musaafir kon ku ci nekk bu la neexee dootoo julli wala ngay wàññi say julli ba kere nga ñibbisi waaye itam bu la neexee dootoo woor weeru koor ba kere nga ñibbisi kon dina doy waar lool kon daal safar googu ñuy wax ngir mbokk mi xam ne moom safar wala musaafir noonu lay demee ci lislaam googu moo tax ñuy wax waaye du tukki gu nekk rek nga ne maanaam kii musaafir la daal di koy boole foofu loolu itam bëgg nañu mu gën a leer ci boppam bu baax a baax yeneen laaj yi ci topp Sëriñ Xuseynu Juuf moo koy laaj moom itam ñu koy ndokkeel di ko ziyaare di ko sant bu baax a baax ci yittewoo nga xam ne gii yittewoo na ko liggéey bi jox ko yitteem loolu wax dëgg yàlla ñu dem ba seetlu ko ci njàngam alxuraan bi nga xam ne mi yor na ci jikki wax dëgg yàlla mu farlu ci lool wax dëgg yàlla defe naa kenn gënu ko cee farlu loolu ma ciy soññ sama bopp di ci soññ ñëpp itam kon suñ Ousseynou day laaj ne hal tajuuzu xiraatul quraani bayna rakaatayil fajri wa salaati subhi ne ne ndax dinañ dagan ki nga xam ne kii dafa julli ñaari raakaay fajar ba pare diggante bi fi ñu war a jullee julli suba gi muy farata gi mu di fa jàng alxuraan wala déet waaw foofu dañ ko naan naam tajuusu xiraatul quraan yi fi hazihi lahzati wal xiyaamu bi baadil azkaari wa yubaaxu sujuudu tilaawati indal wusuli ila ayati sajdati dañ ko naan kon diggante boobu kay soo jullee seen ñaari raakaay fajar bala ñu julli jullik suba loo fa mën a jàng ci alxuraan bu la neexee mën nga koo jàng waaye itam loo fa mën a def ci ay tudd yàlla muy azikar ak ak salaatu ala nabi ay ak istixfaar yi yépp mën nga koo def ci diggante boobu ba bu fekkee ni da nga jàng ci diggante boobu alxuraanul karim itam ba àgg ci ayeb sujjóoteem day laaj ndax di nga ko mën a sujjóot waaw di nga ko mën a sujjóot kay ndax diggante boobu maanaam terewuñu ku fi sujjóot kon benn laajam bi daal moo boole ne diggante boobu ndax mënees na fee jàng alxuraan waaw mënees na fee jàng alxuraan boo fi la jàng alxuraan it ba àgg ci ayeb sujjóot mën nga koo sujjóot ci diggante boobu beneen laajam ba ca topp muy xukmu shiraa il xamri lil walidi wala ianatul xam ianatul walidi li naylil xamri dafay laaj itam ne waajur lislaam dañoo sant ñu fonk ko di ko toppatoo di ko doxal ay ajoom ba am ñu àgg ci ne bu fekkan ni sa waajur wi day sàkku ci yow nga wutal ko sàngara sax ne ne ndax maanaam mën nga ko ko wutal muy laaj ndax loolu dagan na wala déet loolu itam lañ ko jox mooy fala yajuuzu i'anatu rajuli walidayhi ala shurbil xamar bi ay suratin min suwaril i'anati du dagan ci benn jullit muy dimbali ñaari waajuram ci wàllu sàngara maanaam waru leen a dimbali ci ñu am ko waru leen ko wutali waru leen a jox njëgg waru leen ko yëkkati sax di ko jox di leen ko jox ngir ñu di ko jëfandikoo maanaam benn ndimbal daal boo xam ne bii doom ji da ko war a dimbal ay waajuram ci ngir ñu jëfandikoo sàngara maanaam ñu am ko ba mel ba mën ko jëfandikoo maanaam lislaam may ko ko benn yoon ndax bu ñu jàng xaddis yi nga xam ne yi moo rot ci alxuraan moo rot ci xaddis ngeen baal ma li ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci sàngara mooy moom ku ca laal rek maanaam bàkkaar ba ca nga bokk ki koy liggéey ak ki koy liggéeylu ki ko jënd ak ki ko jëndlu ki ko toxal ak ki ko toxalu ku ca laal daal maanaam ca bàkkaar ba ngay bokk tey dañ ne laa taata li maxluuxin fi maasiyatil xaaliq amul benn jullit boo xam ne bi may nañ ko maanaam muy topp menn mbindeef di ko defal loo xam ne lii lu neexut yàlla la wala mu di ko waxal kon daal waajur ak loo ko mën a toppatoo ay xàqam moom bokku ci maanaam nga di ko wutal sangara ne ne sax bu fekkee ne ñoom dañuy jëfandikoo sangara sax yow mu maanaam waroo di bokk ak ñoom ab jataay ci jamono yoo xam ne yii dañuy jëfandikoo sangara soosu kon daal boobu moom dañ ko moytu bu baax a baax a baax xam ne moom bokkul ci li ñuy mayab jullit maanaam muy wutal ay waajuram ay sàngara wala mu di leen ci dimbali ci nuñ ko amee ngir jëfandikoo ko beneen laaj bi ci topp Pape Babacar Ñing moo ko ci tàbbal di ko laaj ñu di ko siyaare moom itam di ko ndokkeel di ko bàyyi xel bu baax moom itam ci bàyyi xel gi nga xam ne gi mu ngi koy bàyyi liggéey bi xel moom dafay laaj ne hal tajuuzu tijaaratu bi maalil yatiimi wa ma xukmu ribxi baynal wali wal yatiimi dafay laaj ne ndax dagan na ci ki nga xam ne kii dafa yor alali jirim maanaam mu di ca commerce di ca jënd ak jaay nawet bu loolu daganee kon bénéfice ba nga xam ne bii da cay amee kon maanaam nan lañ koy attee maanaam nu ñu koy defee moom mu yor xaalis bi ak jirim boobu maanaam bénéfice boobu nan la fay demee lañ ko ciy tontu bala ñuy wax wàllu dagan geeg ak bénéfice bi nu mu fi demee dañ ko naan tawaada allahu al azab al alima liman yakulu amwal al yatama zulman nañu xam ne képp koo xam ne kii yàlla dala booleek ab jirim jirim ba am alal ne ne boo lekkee alal joojee na nga xam ne yàlla maanaam mi ngi lay tëkkoo ak ay duma yu mittee mittee mittee yoo xam ne yii dala dana la ko teg ci lekk ko nga xam ne gi moom nga lekk alalu jirim ja ndax yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne inna allazina yaakuluna amwaala yataama zulman innama yaakuluna fi budunihim naaran wa sa yaslawna saairan yàlla dana ñi nga xam ne ñi dañu lekk alali jirimee ci lekk goo xam ne gi lekk ak tooñ la maanaam duñ ko teg ci yoon ne ne nañu xam ne ñu ngay lekk ci seen biir ya sawra te it bu àllaaxira maanaam dinañ dem dugg biir sawra yàlla daal di waxaat ne wala taqrabu maala yatimi illa billati hiya ahsanu yàlla daal di waxaat ne koo xam ne kii daal dañ koo dafa yor alali jirim alal jooju bu mu ko laal mukk di ca lekk lu dut ni di ca jël loo xam ne lii jërin wu yàlla la woo xam ne bii wu mënta ñàkk la te doon woo xam ne woo rafet la woo xam ne bii wu tege ci aw yoon la su ko defee it ci wàllu ndax su ko neexee mu cay jaay dañ ko naa waye juusu lil mar'i an yu taajira fi maali yatimi ida raa min nafsihi al xudrata ala zalika dana dinañ may nit ki bu yoree alali jirim maanaam mu di ca commerce maanaam di ca jënd ak di ca jaay su fekkee ne am na xarale gu toll ni maanaam mën a jaay bu fekkee ne mën naa jaay nga xam ne dina xam lu nu muy jëndee ak la muy jënd bu ko jëndee mu mën caa am bénéfice ne ne loolu may nañ ko ko mu mën ci commerce maanaam di ca jënd ak a jaay ndax ne ne loolu xatta la tataarada hadihi al amwalu lit tanaaxusi ndax ne ne soo jëlee alal ji rek denc ko noonu fexe yoo lu ko yokku maanaam alal ji day dem di wàññeeku rek day dem di jëm ci ak wàññeeku rek ndaxte ne li annahu sa yakunu mutaalaban bi ixraaji zakatiha ida balaxati nisaba ndax ne ne alal jooju nga xam ne ji jirimbee ko moom bu fekkee da nga ko denc rek te jéemoo caa fexe lenn loo xam ne lii lu ko yokku la ne ne alal jooju su fekkee ne dafa mat nisaab te mooy alal bi nga xam ne ji day doon lim boo xam ne bi bu ko matee ñu war cee génn asaka ne ne kon soo ko dee denc ba at mu nekk da nga koy war a génneel asaka te it ne ne isa li annahu isa lam yutajir fiha sa taakuluha zakatu ne ne nag soo ko dencee noonu rek nga xam ne moom saa boo ko dencee ba matam at da nga koy génneel asaka ne ne asaka jooju nga ci génne maanaam day dem ba day lekk alal jooju ba mu jeex takk su ko defee looloo tax dañ lay may soo ko mënee nga di ca jënd ak di ca jaay di ca am bénéfice boo xam ne bii mooy yokk alal ja yow itam bénéfice boobu dina am luñ la ci wax loo xam ne lii maanaam moom lañ cay moom lañ cay moom lañ lañu la cay cërale nga mën koy jël yow itam xaala sallallahu alayhi wa sallam man waliya yatiman lahu maalun fal yattajir lahu wala yatrukuhu xata taakulahu sadaqatu ne ne képp koo xam ne kii da ngaa yorab jirim te jirim ji am alal alal joojee na nga ci ay commerce di ci jënd ka jaay ngir mu yokku waaye ne ne bul ko bàyyi noonu rek teg ko ndax soo ko bàyyi day dem ba maanaam asaka ji nga xam ne ji moom lañ ci war di génne at mu nekk day dem ba day lekk alal jooju ba mu jeex tàkk kon foofu dinañ fi mën a sukkandiku ne kon dagan na ci ki yorab jirim moo am alal muy commerce di jaay ci alal jooju nga xam ne ji moom la amee waaw bu dee ci wàllu bénéfice ba itam la dañ naan waye juuzu lil waliyi ida kaana faqiran an yaxusa min maali yatimi bi xadri ummalatihi wa ujratihi fi xududi almutaaraf alayhi min gayri israafin aw tabsirin bu ko defee dañ naan moom mi yore alal yi jirim jooju da ci commerce ne ne may nañ ko maanaam muy jël ci alal jooju kem la nga xam ne li mooy tolloog àqi liggéeyam ak it kem la nga xam ne mooy tolloog loo xam ne li mën nañ ko koo xaymaal maanaam mu doon ak payam ca liggéey boobu nga xam ne moom lay liggéey te ñu natt ko ba mu doon loo xam ne lii lu am xel nangu la loo xam ne lii maanaam du gaañ alali jirim ja maanaam di ca xaababal di ca jël loo xam ne lii dafa ëpp waaye nay doon lu yem loo xam ne lii maanaam dina mën di yokk alal ja waaye du dem ba di ko wàññi wala mu ciy jël jël boo xam ne bi day yàq wala day ëpp ndaxte ne xaala allahu taala wa man kaana ganiyan falyastaafif wa man kaana faqiran falyakul bil maaruf alxuraan yàlla dafay wax ne ki nga xam ne kii daa yor alal jirim daal su fekkee ne sax dafa am am koom maanaam borom alal la alal jooju nga xam ne ji jirim bi moo ko moom nay fexe nu mu yokkoo te bu mu ko laal waaye bu fekkee ne nag ku ñàkk la alal jooju nay fexey nu muy yokkoo te mu di ci jël loo xam ne lii tolloo na ak ak xam mu doon lu yem loo xam ne lii maanaam mën na koo jëfandikoo te du gaañ xaalis ak jirim jooju wa ida araada alwaliyu an yaaxuda ujratan ala acmaalihi aw juz'an min alribxi fa alayhi muraajaatu alxaakimi alsharci xaytu yuxaddi lahu maa yaqtadihi sharcu almutaharatu fi dalika dane nag bu fekkee ne da cay jënd ak a jaay moom kilifa gi yore xaalis boobu wala alal jooju bu fekkee ne da caa bëgg di jaay te ne man dama caa bëgg di jël ak pay ci li ma ci liggéey wala damay jël benn xaaj ca bénéfice ba ne day war ci moom bu fa koo xam ne kii day atte ci charia nekkee maanaam mu dem ca moom diisoo moom ba mu wax ko maanaam moom attekat boobu ne ko yow kat alal jooju soo ci dee commerce bonus bi nangam nga ci war a jël wala bu boo ci dee fayu maanaam nangam nga ci war a fayu su ko defee loolu mooy war diggante nag bénéfice boobu mu ci am na dem diisoo ci ak ab attekat boo xam ne bii ci charia lay atte ba mu wax ko la nga xam ne lii moom lay yellool ca alal ja ngir mu war ko ca jël ci bénéfice ba wala loo xam ne ni mooy doon ak payam kon ci gàttal daal bu dee wàllu jirim la daal noonu la ci alxuraan wax ak yenenti xadis yoo xam ne dikk na ci ak it loo xam ne li boroom xam-xam yi wax nañ ko ci maanaam ñu war a sàmmonteeg alal jooju bu baax a baax daal ba fexey bañ koo sànk te fexey buñ ko yoree fexey muy yokku ngir alal jooju bañ a sànku ba bu jirim bi demee ba xam ne bi am xelam ñëw na mu mën a xam nan lay liggéeyee ñu mën ko jox alalam jooju maanaam mu sukkandiku ca ngir liggéey yeneen laaj yi ci topp Moodu Ngom ñing moo ko tàbbal ci biir groupe bi le doyen di groupe muy jëwriñu groupe bi Moodu Ngom mooy laaj al muazzin allazi yalaabul maysar ne la day laaj am noddukat boo xam ne bii daal saa su nekk ma ngi ca grand place ba te grand place boobu maanaam dañu fay carte moom muy bokk ca carte ga boobu noddukat lan moo di ak ateem waaw foofu de lañ koy wax bala ñuy wax noddukat bu mel noonu wala nodd dañuy tàmbalee ci li nu yàlla sant mu di jullit nan la war a mel yàlla dana yaa ayyuha allazina amanu innama alxamru wal maysiru wala ansaabu wal azlamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuhu laalakum tuflixuun yàlla dana ah yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen ma de na ngeen xam ne lii ñuy wax sàngara ak carte ak i xërëm ak i caaxaan ba mu mën a doon na ngeen xam ne sobe la soo xam ne si mi ngi jóge ci bokk ci sobey seytaane fajtanibuhu laalakum tuflixuun ne ne na ngeen ko moytu kon ngir ngeen mën a am ak texe kon liñ koy wax foofu rek ci noddukat boobu maanaam jullit rek nga xam ne da da koo doon nga xam ne sax togguñu ko del def dara ci wàllu lislaam bi maanaam joxuñu ko ca benn taxawaay lu dul ni moom dafa liibar ci boppam war a nekk ci jaamu yàlla ak boppam sax loolu maanaam waru ko rawatina nag koo xam ne kii danga dem ba lu mel ni jumaaye wala jàkka maanaam lu jëm ci wàllu sharia daal ñu jox la ci cër bu tolloon mooy ngay féetewoo di noddu muy cër bu rëy rëy ci lislaam bu cosaanu ci lislaam bu ama am solo ci lislaam ñu lay gis ngay nekk ca béréb bi gën a placé di carte ak mariage ak dame dame loolu moom rafetut jëkkut ci benn jullit waaye nam day gën a ñaaw ci jullit ba saxa la nga xam ne lii moom lañ ko sant ci lislaam mu dëgg def mu mel ne noddukat boobu kon noddukat boobu ak ku mu mën a doon ndax xam ne loolu mu def rafetut jëkkut te it doonut loo xam ne lii maanaam lu ko war la mu di ko def kon loolu daal yellut te it sëriñ bi dafay wax ne wajtani bu majalisa shaqawati sëriñ Tuubaa sax béréb yi mel noonu moom dañu koo tere ne na ngeen góorgóorlu ba di ko moytu bu leen fa di nekk muy béréb yi nga xam ne yi daal ku fa nekk ci lu lay indil ak texaydu dong la lay yóbbe te muy béréb yooyu béréb yooyu ñu daje di weranteeka kartaka lu ne ñu dugg ca yooyu nga xam ne yi dara yàlla newu ca ne ne mooy béréb yi nga xam ne yi ku fay ne lu lay yóbbu indil ak texaydu dong nga xam ne nag kon béréb yooyu na ngeen góor góorlu ba di ko moytu beneen laaj bi ci def mu ne day laaj al wuquufu xaarijal masjid yi lal azan dafay gis ñoo xam ne ñi bu ñu ñëwee ci jàkka ji bu ñuy nodd maanaam ñiy ñëw ci jàkka ji bu ñëwee ba ci bunt bi fekk ñuy nodd dañuy taxaw bañ a dugg ci biir jàkka ji foofu it lañ koy wax nañ ko naan al afdalu an yajmaa bayna sunnatayni yujibu al muazzin wa huwa waaqifun summa yu sal summa yu salli rakaatayni ne ne taxawaay boobu nga xam ne bii ne ne da koy seetlu daal ci ñoo xam ne buñ ñëwee fekk noddukat bi nodd ci biti loolu moom amul tis lay loo xam ne lii maanaam am nañ mën nañ ne mën nañ cee tegtaloo ngir di ko def nit ki daal ñoom bu ñëwee ci jà jàkka fekk ñu nodd dañu ko wax ne ko duggal ci biir jàkka ji boo duggee ci biir jàkka ji nag ne ne boo mënee boole ñaari sunna yi mooy gën mooy nga taxaw di diglu ki noddu di ko toppandoo maanaam baat bu noddukat ba wax maanaam nga wax ko fekk yaa ngi julli bu la yaa ngi taxaw nga dugg ci biir jàkka ji taxaw di toppandoo noddukat bi lu ñuy wax benn sunna la ñaareelu sunna mu ne wala bu la neexee boo duggee fekk muy nodd itam mën nañ may nañ la ci biir nodd gi nga julli sa ñaari rakka ne ne mooy ñaareelu sunna bi kon ne ne loolu daal mooy li gën boo ñëwee duggal taxaw diglu di toppandoo li nga xam ne lii moom la noddukat bi wax wala nga julli sa ñaari rakka yooyu nga xam ni mooy ñaari rakka yi wax rakka yi niw jàkka ji mu doon sunna su dëgër dëgër dëgër ne ne nag fa in kaana yashuqqa alayhi zalika salla rak'atayni walaw kaana al muazzinu yuazzin ne ne nag su fekkee ni yow comme nga taxaw noonu maanaam di diglu noddukat bi di ko toppandoo dafa diis ci yow sax ne ne su la neexee mën ngaa daal di julli sa ñaari rakka yooyu donte ci biir nodd nga koy julli lakin ida tayassara lahu al wuquufu xataa yujiba al muazzina suma yusalli rakatayni jamaa bayna sunnatayni ne ne nag waaye day bu fekkee ne jàppandi na ci moom mu taxaw di toppandoo noddukat bi lu mu wax mu wax ko ba noddukat bi daaneel mu daal di kàbbar julli ñaari rakka yooyu daal ne ne loolu bu ko defee boole na ñaari sunna yi muy sunnaas di toppandoo noddukat bi ndax loolu yonent bi da koo digle ne ku ko mën waaye itam di daal di am sunnaas ñaari rakka yi nga xam ni julli na ko muy naafila ak néew jàkka ja nene itam nene itam wa in kunta taqra'u alqur'ana tumsiku li xawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ida sami'tumul muazzina fa qulu misla ma yaqulu wa in kunta tataxaddasu ma xayrika tumsiku anil kalaam ne ne nag jamono jooju noddukat bi nodd nga nekk ca biir jàkka ja wala jumaa ja su la fekkan nga jàng alxuraan wala ngay zikkar wala loo mën a def na nga war a bàyyi loola daal di diglu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dane su ngeen déggee ñuy nodd su ngeen déggee noddukat ba muy nodd na ngeen wax lu mel ni li may wax maanaam na ngeen koy toppandoo bu fekkee ni da nga doon wax ak kenn koo xam ne ki yaa ngi nekk moom ca biir jumaa ja itam bu ñu tàmbalee di nodd da nga war a dagg wax jooju da nga war a noppi su ko defee loolu daal mooy li nga xam ne lii boo jëmee ca jàkka ja soo demee moom jëruñ ñuy nodd ngay taxaw ci bitti ba ñu pare waaye mën ngaa dugg ca biir te ñaar yi mu la wax soo ko mënee nga def ko te it bu fekkee ni dalaa fekk ca biir jàkka ja wala jumaa ja nga doon jàng alxuraan mu tàmbali nodd da ngaa war a noppi boo doon waxtaan it te waxtaan sax dañ koy tere ca biir jumaa ja lu du tudd yàlla su boobaa wax jooju it danga ko war a dagg xaar ba noddukat bi pare te it dañuy diglu ci waxtaani borom xam-xam yi waxtaanu borom xam-xam bu mag a mag a mag muy wax ci waxtaanam ne sëriñ Tuubaa day maanaam dafa wax ne na ngeen moytu bu ñuy noddu ngeen di wax lu bokkut ak noddu ga ndax nee na ñuy nodd ngay wax dina war a nit ki buy faatu maanaam sukkuraat sax da koy mittil maanaam day mitti lool maanaam wax ci biir ak nodd nee na day mittil sukkuraat maanaam day mittil nit ki buy dee day tax mu yàgg métti mbokk moom mu ñuy wax muy borom xam-xam boobu daal di wax ne Sëriñ Tuubaa mas nañuy noddu benn soxna ñëw di wax ak moom sëriñ bi bañ koo tontu bi ñu noddee ba pare Sëriñ Tuubaa daal di wax soxna soosu ne ko xanaa xamoo ne bu ñu nodd ngay wax loolu day mettil dak dee maanaam day mettil sukuraat soxna si ne ko lu teen nga wax ma ko sëriñ bi ne ko su ma la ko waxoon ci biir nodd gi kon maanaam loolu mën na maa dal maanaam kon ndax wax naa ci biir nodd gi moo tax tontuma la kon ñu xam ne daal ñuy nodd ngay wax maanaam baaxut nit waru koo def ndax loolu mu ci wax ci wàllu sukuraat boobu yeneen laaj yi ci topp suñu mag ji sëriñ Ndiir moo koy laaj ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel moom itam di rafetlu bu baax taxawaayam ci biir liggéey bi mu dina sax ñu saa su nekk sëriñ bi day laaj xukmu tawarusi baynal muslimi wa zawjati li kitaabiyati dafay laaj ne waaw lislaam dafa wax ne ab jullit ak ab yéefar waru ñoo doonante léegi mu ne léegi kon nit ki bu amee soxna soo xam ne si ab yéefar la masalan ab kitaabiya la maanaam bokkuñu diine daal mu faatu ndax war na am ci alal jo maanaam war na caa donn war na koo donn dañ ko naan laa yajuusu lil muslimi an yarisa al kaafira wala al kaafiru al muslima waaw lu sax lu wér de mooy ci sharia mooy ab jullit wërta doon ab yéefar waaye ab yéefar itam wërta doon ab jullit fa ida maata al muslimu wa taraka zawjatan yahudiyatan aw nasraniyatan fala yajuuzu laha an tarisahu li xadiisi nabii sallallahu alayhi wa sallam laa yarisu muslimu alkaafira wala alkaafiru muslima ne ne jullit bi duñ ko may maanaam du dagan ci moom muy doon ab yéefar yéefar bi itam daganul ci moom muy doon ab jullit ne na kon jullit bi bu faatoo fekk dafa amoon soxna soo xam ne si ab yahut la wala nasaraan la ne ne moom soxna soosu wërte doon na ci alal ja waaye bu dee ni soxna saa faatu itam moom jullit boobu doonoon jëkkëram wërte doon ca alali soxna sa ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ab xaddis la lii may wax ne ne ab jullit wërta doon ab yéefar waaye ab yéefarit wërta doon ab jullit hada ma afta bihi al ulama te ne ne lii nag muy ñoom ñaar ak donnante waruta am seen diggante ne ne lii la boroom xam-xam yépp wax ne mooy li nga xam ne lii moo doon li sax bu ko defee beneen laajam bi ci topp mooy xukmu man yaqumu bi miraasi man lahu xamsu zawjaatin day laaj atteeb koo xam ne kii day def miraas di ko defal koo xam ne kii dafa am lu ëpp juróomi soxna na mu ko laaja sax mooy ne day am ñoo xam ne ñii ay kilifaay diine lañu te dañuy dem di miraasal koo xam ne kii dafa takk lu ëpp juróomi soxna loolu de lañ ko cay tontu mooy haza yunafi shariata al mutahharata faqad ajmaa ahlul ilmi annahu la yajuuzu li muslimin an yajmaa akthara min arba'i niswatin fi waqtin wahidin li xawlihi taala fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa thulaatha wa rubaa waaw loolu itam lañ ko cay tontu mooy sharia la ñuy wax nag sharia la ñuy wax sunna la ñuy wax li ñuy gëstu ci li li ñu jàng ci boroom xam-xam yi moom la ñuy wax alxuraan la ñuy wax itam dane loolu maanaam nit ki takk loo xam ne lii dafa ëpp ñeenti soxna day lu wóoteeg sharia la maanaam ku ko def rek xamal ne maanaam jalgati nga sharia su ko defee wàllu googu dañuy gis ne ñett ñi séq ko maanaam ñoom ñett ñëpp dañoo jalgati sharia waaw jalgati nañu itam alxuraan maanaam muy ki nga xam ne kii dafa yor ñeenti soxna ba pare dem di wutiwaat ab juróomeel jalgati na sharia deful li ko sharia sant soxna sa nga xam ne si dem moom lañu dem di takki moo xam ne moom kat bu demee juróom lay doon juróomeel lay doon xam ne waa ji am na ñeenti soxna mu nungu ñu takk ko jalgati na sharia jalgati na alxuraan mooy sharia rek waaye tamit kilifa ya nga xam ne ñooy kilifaay soxna sax xam ne waa ji am na ñeenti soxna ñu may ko jabar mu di juróomeel jalgati nañu sharia lii moom mooy li wér li nga xam ne lii moom la alxuraan wax ne ne mën ngeen a takk lu leen neex ci jigéen ñi waaye na yem ci lim bii muy mën ngeen a yorandoo ñaar wala ngeen yorandoo ñetti soxna wala ngeen yorandoo wala ngeen yorandoo ñeent waaye ca la yem kon ku ñu gis ne takk na lu ëpp ñeent soxna moom duñ la jàppe lu dul ni maanaam dangaa bàyyi sharia def la nga xam ne bii moom la ne moo la neex su boobaa nag loola moom bu dee ci wàllu sharia la moom dañu jàpp ne ne jalgati nga ko la ca des sa diggante ak sa borom la yéen a xam bu boobaa nu ngeen koy lijjantee wa li xawli nabii sallallahu alayhi wa sallam li Ghaylaan ibni salamata xiina aslama wa taxtahu asratu niswa amsik arbaan wa faariq saairahunna ba tey itam bu ñuy tegtalu ci ay xadis muy sunna soo xam ne si yonente bi teg na ko yonente bi dafa tere lool yi tere tere na jullit bu mën a doon ngay takk lu ëpp ñeenti soxna ndax saxaabi bi ñuy wax Ghaylaan ibnu Salamata ne ne ba mu ñëwee jébbalu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk Ghaylaan dafa yor fukki soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ne bala maa mën a nangu seen jébbalu gi nga dugg ci lislaam da nga ci jël ñeent yi nga xam ne ñi ñoom ñoom nga mënta ñàkk a tàggool ñeneen ñi des ñépp nga ci leen ma dogal la dugal ci lislaam loolu la ko yonent bi digal defe naa nag sallallahu alayhi wa sallam moom ku ko fi weesu di dem di def leneen nit moom da ngaa nekk sa programme bopp rek waaye lii la doon digal saxaaba yi kii fukki soxna la yor bi mu ñëwee di jébbulu mu ne ko da ngay bàyyi ba mu des ñeent nga dugg a jébbulu wala kum fi rasulillahi iswatun xasana yàlla dane yonente bi day lépp lu ngeen di roy ci moom rek na ngeen xam ne lu baax lay doon lu lislaam nungu lay doon sharia lu alxuraan wax lay doon waaye du doonam leneen maanaam yonente bi mësta def lu bon mësta wax lu bon mësu koo diglee kon li ñuy roy ci moom lépp lu baax la bu fekkee ne dañ koy roy waaw bu ko defee waxaala nawfal ibnu muawiyata aslamtu wa taxti xamsu niswatin fa xaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam faarix waxidatan minhunna wa amsik arbaan dégg nga ne ne ba tey beneen xas boo xam ne bi nawfal ibnu muawiyata moo ko wax ne ne man de dama ñëw jébbalu ci yonente bi fekk maa ngi yor juróomi soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ne ma taqool ak kenn ki te dese ñeent ñi kon defe naa gënati na leer wér na daa di wax ne fa inna nikaaxal xaamisati mafsuuxun bil ijmaa ne ne takk ak juróom sax dañ naan juróomi soxna waaye juróomi juróomeel moom amut soxna bu dee ci lislaam la juróomeel amut ndax ne ne takk ñeenti soxna daal dina da nga wutaat keneen muy doon sëb juróomi ne ne maanaam du doon pas-pas boo xam ne bu baax la maanaam maye ga baaxut maanaam sharia nungu wut ne ki nga xam ne ki dañ ne ab juróomeel la maanaam boole ko ci maanaam jàpp ñu ne maanaam ku mu takk la daal fa inna nikah alxaamisati mafsuuqun bil ijmaa xaala sallallahu alayhi wa sallam nag man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ne képp koo xam ne kii sunu diine ji muy sharia muy alxuraan mi da nga cee dugal loo xam ne lii amu ci maanaam da nga ko cee sos dañu koy bàyyi ak yow dañ la koy delloo bu boobaa nag buñ la ko delloo yoway xam nag nooy def ak moom su ko defee dañuy waxaat la taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq kenn wartu topp nit ki ci loo xam ne lii ak mooy yàlla la mbindeef comme yow kon bu ko defee soxna si ñu ñëw ne ko dama lay takk te xam ne juróomeel lay doon wartu na nungu wartu na nungu la taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq waajuri soxna sax ñoo xam ne kii kat ma nga ñeenti soxna mu ñëw ne dama bëgg kii ngeen may ma ko ñoom waajur ya war a ñëw na nangu laa taa'ata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq yeneen laaj ci topp Serigne Modou Diouf borom daaray kaamil ñoo ngi koy ndokkeel di ko siyaare di rafetlu bu baax a taxawaayam ci liggéey bi liggéey boobu solo boobu muy jëwriñu alxuraan ji ak xasida yi day laaj man lam yadri ma salla ki nga xam ne ki ne day julli ba jaaga si xamatul nu julli nga demee maanaam xamatul la mu julli lu mu doon loolu moom liñ ci gëstu ci wàllu fiqh muy lu ñu mën a xam mooy ñaar rek lay doon bu fekkee ni ci wàllu fiqh la liñ ci mën a xam muy al mustankih muy koo xam ne kii dafa am xelam dafa naqari dafa jaxasoo day jaxasoo maanaam nga xam ne lu muy def rek bala caa pare dina ci xalaat maanaam man def naa nangam wala defuma ko wala mu def ba pare fàtte ko ne kooku nga xam ne ki noonu la xel mi mel nga xam ne saa bu duggee ci julli moom dina fa nekk di bay na bay na ak di fàtte su ko loolu dalee ci julli dañ ko naan yow daal lañ la may mooy bu sam xel jaxasoo ci biir julli gi lépp loo xam ne lii moom la sam xel jàpp ne moom nga def ci julli ga jàppal loola te la nga xam ne li xamatoo ko maanaam nga bàyyi ko loolu la ñuy wax loolu la ñu may mustankeex koo xam ne kii day fàtte di jaxasoo bu duggee ci biir julli gi nga xam ne saa saa su duggee ci julli jaxasoo dootul xam fu mu toll ci julli ga wala dootul xam lu mu julli dañ ko naan la sam xel jàpp ci julli ga daal jàppal loola te continuer sa julli àggale ci misaal bu doon ni ca wàllu rakkaaya lay xalaat naan man ñaata rakkaa laa julleeti ñaari rakkaa laa julli wala benn na jàpp ne julli na ñaari rakkaa ñaari rakkaa laa julli wala ñett na jàpp ne am na ñetti rakkaa loolu daal lañu may kim xelam di jaxasoo ba saa bu duggee ci julli di jaxasoo ba dootu xam fu julli ko toll loolu lañ ko may keneen ka ca des mooy xayrul mustankih koo xam ne kii moom léeg-léeg lu du néew a néew lay juum ci julli kooku moom day nag safaan ab kee dañ ko naan yow mii moom jéem du la dal lu bari léeg-léeg la lay dal rek maanaam ngay jaxase doo doo xam fu julli ga toll yow moom del jàpp la gën a néew del jàpp la gën a néew ci julli ga nag niñ koy misaale mooy comme la ñu waxan fee mooy kii di kii nga xam ne kii du jaxasoo maanaam mën nañ ne am xelam dafa neex su julli ba ci yàgg si muy xalaat ñaari rakka laa am wala benn na jàpp ne benn la am ñaari rakka laa am wala ñett na jàpp ne ñaari rakka la am su def bu ko defee nag mu motuli julleem bu ko defee loolu lañ koy mooy mooy mooy xayrul mustankih su ko defee daal ci wàllu laaj googu mu laaj daal ci lim gëstu ñun ci noonu lañ ko ci war a mën a tontu muy kiy jaxasoo saa su duggee ci julli julli daal dañ ko doon jàppal la gën a bari te wéy wéyal sa julli ki nga xam ne kii nag lu néew la koy dal muy jaxase julli ga wala muy am lu mu cay fàtte dañ ko daan del jàpp li gën a néew ke la gën a bari lañ koy jàppaloo mooy mustankih ki muy dal ci julli saa su ne ki mu du dal nag nga xam ne lu raar la koy dal dañ ko daan del jàpp li gën a néew tey àggale sa julli beneen bi it muy laaj julleeg koo xam ne kii mënta jàng ab taaya léegi foofu moom fuqaha yi dañ fee wuute waaye dañ ne dafa am ñu ne fal waajibu taallumu tashahudi li war dal mooy nit ki dafa war a jàng ab taaya am na ñoo xam ne bu ñuy liir sax di ñuy wax ci masala bi dañu cay soññe lool ci dañ naan jullit bi lépp loo xam ne lii wàllu jaamu yàlla la da caa war a góorgóorlu jàng loola xam ko dañ la naan jàngal lépp loo xam ne li lu war ci julli la jàngal lépp loo xam ne li lu war ci asaka la jàngal lépp loo xam ne lii lu war ci koor la jàngal lépp loo xam ne lii lu war ci ak aj la maanaam daal dañ lay soññ nag jaamu yàlla yi daal da nga war a góorgóorlu bu mu ci doon yow la nga ca war a taxawee la la ca bokk lépp maanaam nga jéem koo jàng te it Xaadimu Rasuul dañuy wax ne man kaana jaahilan bi fardihi wa lam yasal fa nafsahu abada wa zalam Xaadimu Rasuul dafay wax ne képp koo xam ne kii li la war ci say farata da nga koo réere te laajoo ko ba xam ko xamal ne maanaam tooñ nga sa bopp te alal nga ko te nag buñ duggee ci biir ak julli moom julli doon farata joo xam ne ju ju dëgër la nga xam ne dafa war nit ki def ko dafa war a góorgóorlu lépp loo xam ne lii dafa bokk ci biir julli ga mu jéem a xam loola waaye bu ko defee boroom xam-xam yi ku lu mel ni mazhabu shafii yi ak ahmad alhanbali moom dañuy wax ne taay bu mujj daal ñoom dañ ko def ne sax ponk la ci ponki julli gi ne ne fa in fa in lam yatamakkan zalika ataa bi badalihi wa huwa tasbihu wa tahmidu wa tahlilu wa takbiru ñoom dañu àgg sax ba ci ne nit ki bu demee ba mënta taaye sax na jël li remplacé ko mooy wax subhaanallahi ak alhamdulilahi ak laa ilaha illallah ak allahu akbar maanaam mu nekk fa nga xam ne fii war a fa la war a na taay ñoom maanaam ashaafi yi ak ahmad ibn hanbal yi nee na ñoom loolu la ñu wax ne ne kaman ajaza anil fatihati ne ne mi ngi ngel ni koo xam ne kii dafa mënta jàng fatiha am na ñoo xam ne dañ naan maanaam nanguwut lu mu remplacer fatiha ja comme baat yu mel nii tasbih ak tahmid ak tahlil ak takbir waaye am na ñoo xam ne dañ ne maanaam na yor téere ba tiim fatiha ja di ko jàng waaye li tax ñu daal di ko wutal ab remplaçant muy fatiha ja wala taayibe mooy bu mënta jàng nga xam ne bu yoroon na téere ba du ko mën a jàng ñoom loolu tax loolu la ñu wax bu ko defee nag wa in istataa an yaqra'ahu min waraqatin lazimahu zalika gis nga ne ne bu fekkee ni da ko mënta fexe ba mokkal ko waaye mën naa jàng di liir nga xam ne bu ko tiimee dina ko mën a liir ne ne dañ day sàkku sàkku ci moom mu bind ko ci kayit su ca àggee nag daal di koy génnee tiim ko di ko ca liir bu ko defee ñoom daal noonu la ñu jàppee ab taaye ci biir ak julli waaye ibnu baaz mi a cheikh ibnu baaz mi moom bu ñu ko laajee moom li ñu ci wax mooy wa suila cheikh ibnu baaz hal tasixu salaatu bi gayri tashahud fa ajaaba yalzamu taallum li jamii ma yajibu fi salaat wa adami tasahuli fi dalika benn baaz mi nga xam ne mi mufti bu mag la woon di tontu lu bare bari ci fiqa lu bare bare bari ne ne biñ ko laajee ne ko waaw ndax ak julli mën naa wér ci lu dut ak taaye de moom daal lam tontu mooy dane li war daal mooy lépp loo xam ne lii war na julli bi ci biir ak julli na nit ki fexe xam loolee def ko te nit bañ a topp ak yombal rek ba di am yoo cay sàggane yoo xam ne moom da nga ko cay bàyyi su ko defee kon moom moom lam ca tontu daal mooy nit ki daal lépp loo xam ne lii lu ko war ci biir julli gi dafa war a góorgóorlu kemtalaayal kàttanam ba loola mu mën koo indi ci biir julli ga def ko ca kon li war daal mooy ku mu doon ci ñun da nga war a góorgóorlu ci sa wàllu jaamu yàlla gi lu ci bokk rek loo xam ne lii mënu caa ñàkk ma nga fexee xam loola te bañ a topp yombal gi rek ndax yëf yi moom xañ na léeg-léeg mu yem waaye tamit mën naa jafe itam kon bu ñu topp yombal gi rek luñ ci lënt daal wala xamuñu ko nañu góorgóorlu ba fexe góorgóorlu ci suñu kem talaay kattan fexe xam loole ba maanaam ba man koo def ci biir jaamu yàlla gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu